Samba de moo ngi ni doog a ñëw bët géwél kaay toog yow touché ma tàmbali ma yëkkati ma yëg see bul de xam naa mi ngi ci yoon bi xam naa mi ngi ci da jël élan les souris yàlla baax na asalaamualeykum mu aleykum salaam wa rahmatulahi taala xam naa ne du <laughs> mbay okaay képp laay wax mbay dong de mbay ma benn baa ngi doomu goxub kumbam làmb bi mbay ginnaaw raay nag moom xam naa ne ragal du yéegi raay xam naa est-ce que euh, yeewawul fii ra raay yeeku téere mën naa nekk nag de mën naa nekk de. wa barakaatu hoo mantulaay ci bundooy laay maxtaar xolal muy jëkkaluwaat kii. Hmm. troisième âge nga. ci loolu ah déggal mbay mbay yaa ngi woote de waa bàyyil ba kii yeggali nuyoo ba pare aja nee na waaw kay waaw kay xoola raccroché ko. <laughs> mantulaay chéri Pape. chimère bàyyi sëriñ saaliw ak Adja chéri pend mm-hmm. ak waaja nga xam ne nag daa burux buruxlu mm-hmm. ba dugg na réew mi xonq la woote de jeey waayu mantulaay ci buddoo ji sama xarit woon da ngeen xuloowaat waa yi nangum neexootu na ah yi neexootu ñu maa noonu nañ ci woote ñun waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. ñun hmm? na dafa réeral kalpem bu noir am ci biir carte nationale d'identité carte séjour bu Allemagne permis de conduire carte bancaire ak 30 000 francs ci benn taxi démb vers 21 heures 77 867 05 69 Doua Abdoulaye Diop nee na dafa réeral. sac euh, boo xam ne ay pièces am la def sac bu noir la am ci biir carte grise licence droit de stationnement ci turuk Alpha Mayoro Fall permis livré carte crédit euh, ci turuk euh, Doua Abdoulaye Diop 77 359 92 15 mooy numéro bi Moustapha Diop nee na dafa réeral carte grise am licence droit de stationnement permis livré ci tuuru Modou Dia Pikine depuis une semaine nag ci benn sac pièce bu bu noir 77 312 80 55 moom lañ koy euh, woowee moom mi nga xam ni moom moo di euh, Moustapha Diop Abdoulaye euh, Dramé nee na dañoo sàcc taxiem hmm. bu ñuy sàcc nit ñi kay taxi du du du a wax xam nga fan yee ñu ngi wax ñetti xale yoo xam ne dañu leen fekk ci Daareel Daareel Salaam Chérif je pense. mu mhm. tudd noonu. Mhm. tur bi laa ko gisee woon Daareel Salaam Chérif. Mhm. su ma juumoon Pam Moussa. xale yi dañ leen fekk ci oto ñoom ñett ñëpp ñu faatu ci biir oto bi. waaw waaw. xale yi dañ ñu ngi leen sàccee ca peggu Kolda lañ wax. ah. Kolda xaw ma kii xale yi faatu ci oto ba. ñetti xale yëpp dañ leen dañ leen. dañ leen sàccoon foofu la réere bokk en tout cas. ñu gis leen fan. ñu fekk leen ca Daareel Salaam Chérif boobu. ko naa noonu la tëdd. dama ne fa ñu réeré ak fa ñu feeñee kay. dafa sori mais problème bi mooy xale yi ci biir oto bi lañ leen tëj. ba ñu faatu ñu fatt ba mhm. faatu. Mhm. xale yi seen dégg yi métti dañoo étouffé. ah mi maa ñetti xale fu ñu leen jëlandoowee ñett ñett ñett fu ñu leen jëlandoowee. xam nga loolu tamit erreur la. yow man xale ma fi doon laaj démb xale bu jigéen boobu naan surtout sama yaay jeex yooyu. Mhm. il paraît nee na dañ ko benn maire ko jël seen ab école. xaw ma seen école xaw ma fan daal yóbbu ko si benn tabax. tëj ko fa en fi mu dëkk moom maire ba nee na moom daa xam nu mu def ba génne gëlëm Alima mu ngi topp kaa bi. mu ngi koy topp mu ngi koy topp. Mbaye yaa mën yaa ëpp doole. mu ngi topp bi. <laughs> naaje rek. Alima Mbaye. mu ngi topp kaa moo mën moo ëpp doole Alima Mbaye. ma nga ca de daf koy enu def mu ne. gis nga xale yooyu ñett ñëpp. ci woto bi dañ leen fekk ñu faatu. Hmm? ñetti xale yëpp maanaam dañoo tëj lépp. bu ñu tëjee nag. daanaka fu ñuy nooyee amatul. xale yi fat ah, loolu yéeme na juumul amoon na fi. Mhm. kii doomam duggoon ci oto ba ci ginnaaw te yiwu ko. Hmm. mu wàcc dem ci rendez-vous am yàgg fa lool ñuy fekk ndeysaan ma day taal. nañuy nañuy nañuy bàyyi xel xale yi. Euh, li tax ma wax ko mooy kii naan dañoo sàcc taxi Carina 2 ma ne fu ñu sàccee ñetti xale ba ñuy ne ci woto ba fay faatu. Hmm. taxi du mat wax ci réew mi. Abdoulaye hmm. Dramé nag moom lañ sàcc taxeem Carina 2 DK 43 91 P ca Parcelles Assainies unité 7 Tali Demba Dia ñu ne démb ci guddi lañ ko sàcc waaye waaye ku gis euh, woto Abdoulaye Dramé bii DK 43 91 P Carina 2 nga woote ci 78 478 36 24 78 478 36 24 li ci ëpp nag euh, taxi yi foofu buñ ko sàccee hmm. dañ koy dugal ci koñ yi nga xam ne dafa xaw a ruqe bâche hmm. ko fa su guddee ba kenn ne fa ñuy ñëw di pièce détachée di pièce détachée oto ba ba oto ba jeex maanaam portière ak pneu lépp dañ koy jaay ci yi hmm? xoolal loolu ah yow boo amee carina 2 am ay pièces yoo xam ne danga nga ko yàqule mhm. ñu ñëw pièce bi jar vingt mille ñu jaay la ko dix mille wala cinq mille da ngay nga jël te fekk pièce boobee wàccewul ci benn conteneur. ñoom ñooy jël oto yi di ko sàcc bu ko dawalee feeñ du dañ koy dépiécer mhm. kon nit yi nga xam ne seeni koñ dañuy gis oto yoo xam ne dañuy gaare te ñu te te mu mhm. dañuy faral di woo police bi leen gën a jege. ah nañ ci taxaw de. dañ koy def dañuy faral di woo police bu leen gën a jege xamal leen ni am na oto boo xam ne gaare na ci façon bu xaw a teexeel daal suñu koñ mhm. mooy dëgg. Babacar Diop nee na dafa réeral ay pièces wu Ndeye Amy Dia permis carte nationale d'identité carte bancaire islamique ak carte bancaire CBAO carte étudiant 77 850 19 81 Babacar Fall nee na dafa fàtte pochetam bu marron bu am carte nationale d'identité permis passeport carte bancaire ak ay document yoo xam ne dañ ko soxla nee na dafa xaw a urgent diggante boulevard de la République ak Zac Mbao mercredi lañ ko réeral 77 634 55 80 képp koo xam ne nag euh, gis nga pièces yooyu nga xam ne euh, moom Babacar Fall mii da koo daal di réeral. Mhm. moytu leen de. ñu nga nelaw jékki-jékki sax yeewu feneen ndekk te sàcc nañ la bu yàgg. doo xam tax ndax yow sàcc nañ la. Hmm. dëgg <laughs> ah, ah ah kay. yaa fi nekk daal di wax anniversaire yëngalal ko ko yëngalal ko ko. Moussa Seck yëngalal ko ko. Ah, ah waaw waaw. ah ah la tudd. baax na kon ku baax la. ah doom ji moo tudd laal la macha allah. mooy Arif. Bousso Seck. maam Jaara Bousso. moo judduwaat. moo judduwaat tey. tarkal Jabel Seck grand boucher bu Zac Mbao ma koy nuyu bu baax. Jabel Mamiton ak Marème ca Medina jàppoo. maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax. Hmm. Marème ton nag yaa mën. ton. doomu nday ma daani ma yow yow wax yow waxuñu fi woon bulet bi. ton ak nambe moo ci mën. Ah, moom maam kenn ci mën. en tout cas en tout cas waxoon nañ fi bulet bi tamit nag. maantu bulet moom. madaani madaani foofu la koy jëndee ci marem ton hmm. hmm. ak ay namba yu doy waar ton yu doy waar doomu ne Medina jaar Medina nag tudd nga ton sama xam ne am na fa mu ñu daan yóbbu de madaani cey ton mel man man ah ton histoire bu yàgg la sama rakk ji Omar gi yëpp moom laay lekk. man hmm? ma ko boolee leen. dama ko bëgg sama xol ton. Ah. hii ma ci da nga bëgg jën nag. dama fa ma boole la ak sama sama sama sama mag yi baax la ci torop bulet bi fa non bulet bi maam kenn da war defar nag maam ngeen fan yee mi naa dégg naa la yaa ngi maam bay naa defar bulet spécial pour man na ma heure bi rek ma taal sama oto del ñëw fu 17 jotee rek yow ah. ñëwal en géej ga jeex na sa kër noonu en face en face géej gi rek sama kër yaay fu 17 heures jotee ñëwal ne ana maam kenn maanaam hmm? kenn waajal ma bulet moom moo ci mën. bool laay andi ñëw jënd. bulet bulet moom moo ci mën. waaye kenn du akara bay. ku akara. <coughs> nag. waaw waaw ah, dama amee moom dëgg la. sama mag ji mimi foog ma boole la moom marché central. <gasps> wala yow da daa euh, bëgg lépp lu xeetoog ay jën daal. Hmm. mimi maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax. mu sama yaay Soda. Hmm. nuyul ma mamati sama rakk ji neex a fekk nis. fa dëkk neexee ca kaan ba. waaw eh, ñun ñuy dem Nice. kan la ñuy dem fële ne sama rakk ji dix-huitième wala Nantes wala. <laughs> Strasbourg. wala New Delhi. wala Washington. yàlla baax na dinañ fa mës a dem nag mbay <laughs> yàlla jeexul. Washington DC Washington Seattle. Hmm. yàlla jeexul nag mbay waaw waaw nga dëgg de bu jeexul yàlla bu fa yàlla dogalee sam ndékki di. danaa fa <laughs> da ko fa xam. nga xam ne ndékki ndékki bari na te wuute. mbay <laughs> mbay ndékki bokkul mbay. nga ne maanaam sa waa ji da ngeen xuloo. waaw soo joyeux anniversaire sama waa ji kat dinañ xuloo nag. dañoo xuloo ah, moom da moom bu neexee ba neex rek. arbitre moom mooy ñëw. andi jikko fekk. cere ju ma teg mu neex loolu mu sotti ci suuf. te man nag xam nga nag kaay ma xamal leen man na ko sotti sama cere suuf nag moom dootoo ko defati. Ah. danga may dégg. ah ah ah fan yële. temps yële fan yee temps yële. yii wala yee non yële mbay bul jaxase temps yi de. mbay bul jax mbay bul jax bul jaxase temps yi de. ah yéen man Doulaye war na nekk fii di wax waxam yii yéen ngeen nekk fii. xuloo bi xuloo bi mais yéen. ah ñoom seen xuloo déedéet man seen xuloo daf may neex moo tax. il faut may may fàttali sénégalais yi ne ñoom dañoo xulooti. parce que lan def damay laajte kañ la ñu xuloo. ndax barki dem temps yële la woon <laughs> mbay bu yàq am yii am na temps yii am na. ci yee am na mais juboo woon nañu waaye ci yii temps ay fan a ngi nii ngay dégg saa boo waxee ma xëpp ci suuf ne la xaw ma aram xaw ma ñoom de xaw ma man xaw ma kenn. ah man man topp ma kenn. da lay carte rouge yéen nokkos laay topp da lay carte rouge. Euh, ay dégg naa 2 millions carte <laughs> yooyu rouge lay. lay defar di ko jox di ko la waykat boo xam waaye léegi dama bëgg dama bëgg a Guèye ñoom Babacar Justin dama bëgg ngeen wax ma. Ah. moom Bougane <laughs> nee na bu tiiree deux millions cartons yu xonq ah. ne da koy séddale askan bi ah. pour ñu ne président Macky Sall troisième mandat du fi amee damaa bëgg ñaari million carte yee ku koy defaral benn ah. mhm. ñaari million carte yee su ko defaree ba noppi ku mu koy jox ñu distribué fii moom du ko fi indi non du ko andi fii ñan la koy jox léegi ñu ko koy séddalee ba pare bu ko joxee ñooñu ba pare gay ñooñu fan lañ koy wanee Sall fa lañ koy wane. maanaam 2 millions cartes yi. xanaa topp ci fan la ko président ma ki di di di gisee. di wala dañoo bëgg nag fu Sall jaar rek. ñu yëkkati carton ba. maanaam Sénégal ndakaaru jël job Sangomar gépp xonk. Ah, ah, nga xam ni doo rëcc fenn. xam nga dañ naan ginnaaw day bëri pax bu buggee. waaw léegi nag yéen bu réew mi yëpp yore carte bu xonq fu Macky tëlee ñu ni ko nii fu mu tëlee. Guèye dama laa bëgg. waaye réew mi non réew mi dafa neex. c'est que damay xuloo yow rek mais dama laa bëgg. Guèye Dany kenn du moom. Hmm. kenn du moom. nee na 2 millions lay defar 2 hmm. millions fàllu cuuraay ci leen yaa mën ah, yaa. nasaal bi xonq nasaal bi weex moom nee na na réew mi xonq. lan la moom na côté grand théâtre nag. nasaal bi rouge lay wax boobu boobu na doomu mbéjee fay nasaal bi weex. yow nasaal bi xonq. blocage nasaal bi rouge. nasaal bi super. Eh, est-ce que xam nga ni blocage la Macky doo dem. NTM ba. nee na ko mukk doo dem. la. te nag mu yokk ci dañ koy tere. foofa ne eh? dañ koy tere. dañ koy tere. dèjà moom rek xaw ma ñaata carte la parce que moom daa xonq moom rek daa xonq xam moom moom rek xaw ma ñaata carte la. ak yu sew waaw ah, moom xam moom xaw ma moom ak moom ak njaboot ñoom nañu génn taxaw rek. <laughs> bugaan dinañu rey. ak madame. <laughs> Yakhar Awa Ren wax nga dëgg de madame la maire ngeen rek. ak lay <laughs> na. yéen mag <laughs> daal deux millions carton yoo xam ne dafa xonq cur cur cur cur lay yore moom lay séddale askan wi. kii nee na ma saa boo banqué rek tooñ bugaan. man nag li tax ma bëgg ko mooy. <laughs> réew mi ñu ngi may bëgg naan nag. li tax ma bëgg ko mooy bu ba soobu ci combat foofu. da ko wàcc de bu xasee ba soobu ci combat moom. mbaadu. 2 millions yooyu de. xamal dañoo war a tàmbali nag di ko tendance tabaski bi daa jub si. daa war a jox waa tës ñëpp ak matinal xaar. dëgg la ay ay defoon na fi enveloppe yu baax de. ay xoo xaar de xoo. lu tax kenn du ko fi tànnaas. ah <laughs> Chimère yow mën ngaa wax ñu ne duñu tànnaas bu gaan kay dani ah. kenn du wax. ñu noppi ji. waaw waaw. dama ne la yow boo waa léegi ñu tëj nii kon. yow boo ubbee rek ñu ne bugaan. was. bugaan. waa léegi waxuñu bugaan daal di daan wax. ma ne bugaan gay yaa ah, ngi ne da ngay jënd deux mille da ngay defar deux mille. million carte yi xonq. Ah, ah, waaw pour tere président Macky Sall mi ngi génn mi ngi génn ah. nee na mi ngi génn président Macky Sall génn. ana ana ana kii man de maa ngi yokk damaa déggul dara di. man man sama micro man man sama micro génn dama ni. Bougane Gueye Dany yaa woon ah. maam góor. yaari maam ah. carte ngay defar. xuuy nag bu ko fàtte. ñu nekk lan. yaa man yaa ëpp doole. xuulee xoo. man laa bu rax lébu. ma baax dama ne la Gueye yaa ne ah. da ngay defar 2 millions de cartes. waaw. ngir jébbale ko sénégalais yi ñu ne président Macky Sall doo fi am beneen mandat. waaw ñun ñu ni la. Ah. Gueye gestuñu sa njaboot gi. joxoo yële. yaa nee na boo nee na bi baax baax. fas yéene nag di la tendance ci tës bii ba tabaski jub si. ah ah nee na foofu du are waaw. <laughs> na foofu dañ lay tendance de fii doo fii kenn du. mais loolu na ko moom xam nga defoon na ko fi tabaski def na ko fi kori it bii tam dana ko defaat. ah de Guèye Guèye dina dikk te bu dikkee rek tubaarkàlla nga xam ni géey maam gor ñëw na maa la xamal lii. ñii nii président ci réew mii noonu mën nañ la koo def ñun tamit ah. waa léegi moom ni mu toppee président Macky Sall nii ah may ko dara it ñun mënees nañu ko topp noonu nag waa léegi xam xale dañ naan yow rek la topp. <laughs> man xanaa tendance bugaan ngay def. ah bu ah. nee na émission bi jeex na ñu jub. waxuma loolu de. ndax lan li li ñuy wax bu baax ni moo tax nga bëgg a jeexal émission bi. mais si foo jaar Guèye Mame Gor yow. ah baax na. ah lii de ah. appli ah? <laughs> application yi. ah daa yónni xale bu ndaw bi. daf laa nuyu. ah xale bu ndaw ban la ci. daf laa xawar bi daf laa xëcc ci fajar bi. bii nii wala beenee. ban la ci bii nii wala beenee. bu bële bi wala bu xonq bi. ñaar yëpp ñaar yëpp. Ah, baax na bugaan xonq la woote de. yàlla baax na yàlla bëri na sutura waaw yàlla bëri na sutura yàlla bëri na sutura ah Ahmad ñun ñëpp. waaw ah. maa ngi nii de. yow xoolal daf ñoo bëgg noppi bu benn dama lay wax lu leer daf ñoo bëgg noppi loo. waaw ah, daf ñuy corrompre nii lañ tendance suñuy tendance bu ñu ko kenn yàqal. dañoo simee dañuy corrompre nii pour bëgg ñu noppi. désormais moom. yàlla baax na yàlla bëri na. Aliou daal eh. nee na ma bu moytuwul seen <laughs> ay boobu carte ku ko distribué. ay waay tey nga ñuy déggee nag. mu xonk ba pare mu weex. ne dafay joxe xam tey ngeen ñu cey tey ngeen ñuy dégg nag kay gay fu mu defalee carte yu rouge ñu defar ay carte yi kii ñu nit yoo xam ne dañ ci bind xoo di bind ci bind ci xoo da suñuy carte yi weex dëgg la fu ñuy jubooy moom dëgg la kenn du ko fekkee kii nee ma tey la quarantième jour bu Omar Sow Ndeye Khady Diouf ndeysaan Omar Sow tey la sama xarit suñu waaja Sow oh. bu mag bi lool wallaay li ngeen ko fi seedeel ñu bari ci tabaski lool soo oh, sa rafet la nga daan jëf ci nit ñi ci lu baax. wallaay yàlla na subhaana wa taala fay la ko ay gëneel ak xéewal. yàlla xaare la aljana. yàlla jéggal la say bàkkaar. attee la ci yërmandeem ba moom subhaana wa taala. nga xam ne nag ndeysaan moom moom subhaana wa rek moo mën. ñuy xëy di ko tooñ suba ngoon bu dégg ba cëg mm. mu naan ñoon tooñ leen donte baaxul yéen tooñ leen def leen lu leen neex mhm. waaye na ngeen tuub mhm. te bu ngeen tuubee bu ngeen ca dellu xam nga kile ni la Fafana mhm. man moom duma mës a taxaw ni nit tooñ ma Fafana kaay di ma tooñ déedéet mais ki la jox ki la jox sañ-sañu ne la soo ko tuubee laataa ngay faatu te delluwoo ca ma jéggal la ko kooku war na ne yow nit kese nga. wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan daf na la yow matoo ñun matuñu. war nañu ko de nañu ñun xoolal yéen matu leen nit kese kese kese kese ngeen. Mhm. da ngeen di juum. Mhm. waaye nag boo juumee. Mhm. jël Ndeye Khady juuf mii nga tooñ ko. ba mu leer la ni Ndeye Khady juuf mii da nga koo tooñ. nga juum ci moom. jéggalu ko moom Ndeye Khady jéggalu borom bi subhaanahu wa taala te doo ca dellu. wallaay ndeysaan jéggalu balaa muy wees. parce que xamuñu tey la xamuñu suba la de. na solo jéggalu kay. ah waaw. nañ jégalu tuub rek. tuub dellu ci yàlla nañu jégalu. c'est que foofu day déconcentré que foofu mii moo jël yoonu boppam. <laughs> Euh, euh, euh, Mantou Alioune Ndiaye mii li ko dal dafa metti loolu nag. Ah. nee na 23 mai la woon. Mhm. vers vingt h 30 mhm. la doon la ay ndaw songu ca wetu stade municipal bu Mbaaw. Mhm. ay groupe bu ndaw. Hmm? dal ci kawam nag yóbbu nañu. appareil photo bu marque Sony RX10 bu nekk ci couleur bu ñuul. mbaa du photographe la. Euh, euh, euh, marque marque 3 noonu la ah. nee na appareil boobu rek 1 million 300 lay jar. Mmh. benn téléphone portable am. bu marque Samsung Sony mmh. xam naa. Sony Alpha marque 3 bi la ak cher. waaw mmh. benn portable Samsung am J3 2017 bu couleur bu ñuul jël nañ portefeuille ba nga xam ne 30 bi nga ca biir 3 batterie benn chargeur. carte carte mémoire ñett trois clé USB. nee nañ na ko fa dëgg ku ko nañ ko si dimbali rek. lu ci nit fort bu fekkee am lu si nit fort daal wala kuñ ko bëgg a jaay xamal ne loolee ñu fi lim. Mm-hmm. Aliou Ndiaye moo borom woo ko ci 77 916 40 84 77 916 40 84 mi ngi dëkk ca Kër Massar cité Linguère. Mm-hmm. la Linguère yaa na ko yàlla ñett. waaw nañ ko dimbali nag. Mm-hmm. tey nag tey nag benn journal l'observateur dafa ñëw ci jigéen ñi li ñuy jëfandikoo. mooy loo xam ne daal daf leen di yokkal ginnaaw. ah. te yenn saay. mu ngi tukkil réew mi ngi tukkil réew mi de. yokk mi. ban xale nga fi gis léegi mu mu mu kii. sirop yeeg comprimé léegi xale yëpp kii. xale yëpp tubarkal. léegi xale yëpp kii ñëpp. ñëpp a yokk ah mu jéen. ku la am na yoo xam ne produit la dañ koy dàmp. ay réew mi artificiel. Mm-hmm. am na yoo xam ne suppositoire la. ndax lañ yokk ange ak ginnaaw am na yoo xam ne siro la am na yoo xam ne comprimé la. sirop sirop am na yoo xam ne sax opération la. opération la chirurgie ci biir chirurgie ah. waaw. jëlee ci xale yëpp a ci yoonu Turquie bi fi mu nekk Tunisie. ah bon ah, rek dañuy liggéey xale yi xale yi koo ci may ma ngay dajale. waaw dem diggante. Tunisie. ah waaw ak Turquie. ñoom fréquence de modulation. waaw dama ne mante bu góor ñi di dem jasab kay ñoom ñu dem. turki onde ah, de modulation laa wax. tegal ah, mais fréquence de modulation mooy FM de. waaw dëgg la comprendre waaye dama ne. bu góor ñi di dem jasab daal ñoom ñu dem turki man de loolu la góor ñaa ngi dem jasab ñoom ñu dem turki yéen kaay bi nag nee na loolu fi mu ne mi ngi tukkal àddina. ndax ma nga sa gàccee nga sa nag. femmes yu koy jaay ñoo ëpp alal fii léegi. fi mu nii yow eh. jaayal suppositoire. am naa sama benn xarit boo xam moom lay jaay. waaye wala sirop waaw yooyu noonu tabax na këram de. ah waaw xale yi dañ koy dañ koy jënd. man de ba ma ànd ak ba këram damaa tiit man. man ko fooy jëndee man de war naa man teemaa dugg ci marché bi. ci jaay ah, mi ndama nga sa gàccee nga ci. comme man lu ma gis jaay ko. moom lay jaay de. Hmm. tubaarkàlla te xale yaa ngi tubaarkàlla. yee moom lay jaay. ba de amul effet secondaire. sama xarit ah, na bañ na. du amul effet secondaire. am na ci boo xam ne fan yëpp ñu ngi wax ci réseaux sociaux yi ne comprimé la boobu. xale yu bari dañoo nekk ci comment te moo leen ci dugal. wóorul de. ak problème cardiaque. ak rein cardiaque waaw ak rein. yoo xamoon nu comprimé comprimé. xale yu bëri ñu ngi ci insuffisance rénale bi fi mu ne. te loolu moo leen ko jural. moo tax am na xale yoo xam ne. seen kër yi moom seen tànk yi dafa néew ba jol-joli. ndax lan. ndax yokk. yokkum ndax ginnaaw. ndax yokk yokk gi nag lu la la la. mais gaa ñu xoolatu ni hmm? ah déedéet waaye nag waaye nag waaye nag ne nag yëpp bon mbind mi la yàlla jox nag yëpp bon waaye daal nañu ah. moytu daal nañu moytu daal yéen kaay bi daal nee na ku fi nekk am nga njëg jaru yokk ravage yi daal daal dinay bëri ñu ngi ñëw léegi suñu tës bi tës bi nag li tax tey ma génn ko ci aljuma ji pour ñu wax ci xale yi nga xam ne parce que ndeysaan dama dégganteeg temps yële yële benn waaye bugguma wax fu mu nekk mais dafa am tës buñ fi tegoon di am ñu joxoñ ñuy waxtaan ci xale yi nga xam ne dañuy fàq seen kër yi ñuy ñëw ci ñoom mu wax ma parfois li indi loolu wax ma parfois ñoom niñ leen di stigmatiser di leen joxoñ te des fois dañuy teg xale yi ci yoon jàngal leen ba ñu jub mhm. delloo leen seen i kër mhm. macha allah donc tey prétexte la loolu de ma ne am gën pour ñu wax ci xale yi nga xam ne dañuy fàq foofu hmm? xale bii day fàq. bëri nañ hmm? bëri. en tout cas boo demee fii Patte d'Oie gii xale yu. baree bari suufu yoo xam ni. xale yu baree bari yoo xam ne mooy suufu pont. waaw suufu tamit ak foofu tamit. ay booy yoo xam ne 15 ans 16 ans nañ am. foofu la ñu nekk ci suuf. laataa ma ciy ñëw les ko foofu dafa ñëw ci. waaw. benn paa boo xam ne juróom-ñett fukki at la am. juróom-ñett fukki at. 80 80 80 ans. yéenekaay bi mu ne paa bi démb dañ ko doon àtte ci tribunal bu Ndakaaru. àtte mel ni mi àtte màgget boobu yow lu mu def. Eh, ay mag buur la ay waaw. benn xale bu jigéen moo dem ca baar ba. Hmm. di daal eh, eh, parce que paa bi dañu ko tuumaal. ay viol ki attouchement ak ñoom seen. 80 nga wax de 80. 80 tamay pas da doon daaju instant boobu. moom doomam bi nga xam ne léegi nekk na magum jëm magum jëm. Oh. moo dem di témoigner ci papam. contre papam. Ah, waaw. contre nga wax de. waaw. yaayam aussi di ci appuyer. ca contre ba eh. la mbir am na de. waaw papa tey moom xale bu jigéen bi. yamul ci ne papam daf ko doon def moom. ah ñu ah, ah, da ko doon defit mm-hmm. xale koñ ba. inceste compris moom doomam la ko doon def. maanaam. paa bi dañu ko doon àtte ci ay affaire attouchement ak. Ah. ñoom seen ak viol. doomam joo xam ne dem na ba nekk mag. di ko dëggal. dëggal ko. Mm. mais soxna paa bi ci boppam di yaayu xale bu jigéen boobu dëggal li doom ji wax. Eh. sutura eh, na. mbir ma jaxasoo na. ni dëgg neexoon mbalam ba ndeysaan ca yooyee lay dox. moom xale bi expliqué ba mu gënee nekk xale na ko papam doon def. Oh. Oh, lambaatoo oh. papa ko. di expliqué ci baar bi li papa ji doon ko def moom. moo tax bu ñu naan léeg-léeg bu viol amee juruñu dëgg-dëgg ñu ñuy viole ma ne man de damay wax ci contrôle lu madame Sakho bu AGS. Mm-hmm. inceste daf fi am. am jur sa doom ba pare. sëy ak moom yamu ca. ñuy wan lor te lépp. ñoo seen propre papa ñooy bokk euh, seen propre doom ñooy bokk benn baay. am na. mi ngi ci réew mi te damay wax ci contrôle. madame Sakho bu AGS. xale yi jur ba pare. di yuuxu ne duñu nàmpal xale bi. parce que xale bi du seen doom seen rakk la ah, ah, ah. ay témoignage yu yaay ku nàmpal sa rakk xale yi di yuuxu ne duñu nàmpal xale yi parce que xale yi du seen doom seen rakk la que seen propre papa moo leen violé ba bañ jël war na ca lor ma continuer ak les échos léegi góor gi borom octogénaire euh, bi noonu ko tubaab nee paa bi ay jarbaatam yoo xam ne diggante ñaar jàpp ñetti at lañu amoon sax. yegg kaw. doon na leen ko def. paa bi mën naa màtt di la waykat boo xoon maa mën a màtt de waaye paa bi tamit. Mhm. <laughs> mën ah, nañ ko wayal waay wi nag. waaw moo moo mën a yaay ji ñëw ne. du ñooñu kese. 80 ay bëñ ba maanaam am na yeneeni xale yoo xam ne. Uh-huh. kilométrage bi paa bi la mu leen doon def ci ñaawteef ci lu bon. Eh. jéggi na dayoo ba ba ba ko meer ba di nettali. yéen kaay bi ne juge yi ak ña toogoon foofu dañoo craqué. oh oh, oh, oh, oh may paam kon nekkati nettali gën na fee ñaaw mbir am na. fii réew mi toll. ay dañoo craqué. aywa paa bi def na carrière nag. ay saa baay ay saa baay la. ndax jëf ju ñaaw. maa ngi des ay bëñ ba léegi. 82 mënu ko a <laughs> kii gën a kii def eh, di nga bippe nag waaye mais bu demee ba doomam bi nekk une dame mhm. di témoigner contre moom te ni ba mu ko koy def xale la woon maanaam da ko yàgg def hmm. est-ce que bi mu amee âge bi bàyyiwu ko fekk mbir yi rattrapé ko waaw waaw waaw hmm. rattrapé par son histoire par parce mm-hmm. que da lay rattrapé par son nga ne ci lu bon àddina di la jay wallaahi wallaahi nga dem ba nekk mag mu xawi sa suuf am na âge boo xam ne boo ko amee mm-hmm. jege nga bàmmeel lool donte ñun ñëpp ko jege mm-hmm. mais ko amee jege nga lool te danga naan lépp lu ma defoon ci àdduna dama koy tuub ne yoon bu baax yàlla ni la dama lay weer fii weer la fee am na sama xarit bu ne ma woon yàlla léegi mi ngi ci appartement yi ci jam ñaajo soreetul xaaratul weer bu dee léegi loo def da la koy fay fii ngay gis nii nii nii eh dalay weer fii ba pare ba ñëpp xam sa jëf ju bon suñ demee yow mal xiyaam mu duma la tànk mu daa bari sax te jigéen boo toppee sa ndaw boo toppee sa ndaw sax mi sax mag réer la sax ndaw boo ko toppee. sax mag da lay daal di réer may lay def. parce que bu fekkee da nekk oh, ndaw di def lu la saf. di am ci lu lamb di say doom. di ko borom baax di leen di leen di leen di leen sàkku. ba xale bi màgg di ko témoigner di témoigner nga am 80 ans. yaay ji tamit donc tout ça lan moo ci doon rôle am. loolu dafa doy waar. lan moo tax bàyyi ba tey jii muy témoigner. ñaaw téef nëpp nëppal ñaaw téef yi nga xam ne paa bi jigéen ñi ca koñ ba te xale yu jigéen yooyu seen àdduna day yàqu xam nga xale bii dem ba nekk mag xolam may ko mu taxaw ci tribunal di wax ñaawteef bu ko papam doon def ça veut dire boobu ba tey góombaan ci xol bi ci xol ba loolu te amul te amaana sax booba amul ku mu ko jooytu hmm. boobee tribunal ba mu taxaw da koy dimbali mu génnal ne ci xol bi hmm. occasion la woon ndax bi mu nekkee gone ba léegi amaana mi ngi dund loolee di ko nag ci moom di ko nag ci moom occasion la am ngir mu génn waaw loolu koo koy raconté ku dul sa yaay xam nga ni. kan nga ko mën a raconter. doom ju taxaw di wax ayib bi bàyyam ci kanam. mbooloo kan nga koy raconter si kan ngay dem naan kan sam papa daf may def lii. mais yaay ji ko yaay ji ko dëggal nag. moo tax mën a bàyyi na ko laaj kañ nga xam lii. ak lu tax ba mu ko xamee ba tey waxoo. waxu ci moom tamit. wax nga dëgg bi da lay leer na ci cellaaralu doom ji. Mhm. ak ci cellaaralu jabar ji. continuer di ko def di yàq vie ay xale yu ndaw xam nag nëpp nëppal nag moo tëj réew mi. ah baax na. nëpp souvent inceste boo xam ne dañ koy nëpp nëpp nëppal gi nëpp nëppal gi moo war a mën a. buñ ko wax lii boorul génne kër gi nañ ko waxtaanee potum bii. yéen a ngi fàtte xale bi nga xam ne moom mooy victime. mooy victime bi. Mm-hmm. bu fekkee nit ki dafa da nga nekk dëkk ak moom mu violé sa doom da koy da nga koy porte plainte yóbbu ko ci yoon ñu corriger ko ngir ëllëg mu bañ ko def keneen wallaahi ndax xale yi xale yi xamuñu dara du wees waaw kon kon kon saa bàyyi saa bàyyi nag wax dëgg yàlla na na mm-hmm. topp na neex yàlla sa na du wees nattu topp na foofa nag ñu dugg ci mm-hmm. tës bi waaw waa ji nee na doomam mais day dem ndax maam booy day dem fu mu jëm day dem day fàq day voyage góor la day fàq góor la góor la oh, amul arrêt day dem di ñëw. bu demee ñu wër ko gis ko. mu jékki-jékki demaat quelque temps ñu wër ko gis ko. waaw moom lan moo ko dal. 12 ans mi daa neexul. léegi nag loolu lañu bëgg bu bu bu tës bi jeexee ñu jéem a wax ak waajur yi. Mhm. ñu jéem xool dëgg dëgg yi explication bi tax yenn saa doom yi di daw. Mhm. parfois explication bi foofu mi ngi ci kër gi. Mhm. xam nga waa ji ñu wax sànq xale bu jigéen bu ndaw ba. lu la leer ne ba mu nekkee xale daanul dem daw di ñëwaat lam ndax bañ a lu ni mel moo nekkoon nekkoon gis nga te yow yaay te nga texan di mel ni man ba doo ko njortu sax fi ko ngi tas dëkk bi dooy fi nit de cay bàyyi cay bàyyi booy ñu déglu cay ñu déglu ko waaw ah, sama doom mooy wër la koo xam ne fii ak semaine dafa war a génn ci kër gi. amul problème waaw semaine waaw semaine la war a génn daal. Mm-hmm. amul problème nag. xel mi dara ñi nekku ci. Mm-hmm. amul lenn lu ko ci indil problème. Mm-hmm. maanaam day def rek maanaam su toogee ba mu yàgg génn dem ma seet ko indiwaat ko nii. nekkul loo xamante ne luy luy luy luñ koy def la wala luñ koy wax lu dul ni maanaam day mer génn wala si bañ a liggéey bi waaw ah. waaw ah, xam nga liggéey non liggéey bu fekkee liggéey jot ne moom dañ ko naan liggéey rek hmm. fa muy liggéey itam bu demee bay foofa dem ci mbedd mi di ànd xale yi fo xam nga loolu itam waaw waaw ah. ah, non pas neexuma sax waaye xam ngay gone yitam su xëyee nga génn ci kër gi dem ne ko liggéeyil dangaa war moom it mu dem liggéeyi mm-hmm. waaye soo génnee mu nekk ci futbal yeeg ak di de dox di wër yooyu xam nga nga baaxut ci gone ah, daal xam nga ni ma dégg nga bu génne lay dem mën naa dem ci ay pàqman dem dafa def waaw xam nga bu gone moom bu génnee moom mënatoo xam fan la jëm mm-hmm. koo xamante ne ni moom comme moom jàngaloo nañ ko ah léegi soriwul ci njàng mi bariwul lu ci xam njibisi na léegi ñuy joxewaat ko ci téer bi mën naa ñaw kooku dëgg dëgg dëgg soo xëyee ba mu ndékki ne ko génnal liggéey dem yow liggéey bokku leen place dafa war a jóg dem place ba liggéey waaw loolu na rek. buñ ko nee du def loolu. waaw waaye maa ngi du def lool. soo génnee nag léegi ne ko dee demal mu dem ay footballé ak nekk ci mbedd mi di wëreelu ci xale yeeg noonu noonu looloo tax. xanaa xale yi ne àndal dañ laa neexu. ah non ndax wuyu wala. xale yi wuyu wuñu waaye ñoom it day comme dañuy jàng bu ñu jàngee ba pare bu fekkee heure fête la ñoom bu ñu ñëwee toog moom dafa war a liggéey ndax moom jàngul moom dafa war a liggéey waaye mën nañ ànd ak ñoom itam di wëndeelu bàyyi liggéeyam ci loolu lay doon. waaw ah, yàgg na di dem na ba mu nekkee xale ba léegi nii ba ñuy doon doom nekk doonga daara daana dem mais bi mu ñëwee di liggéey itam léeg-léeg mu meer dem léeg-léeg mu mu toog. lan moo tax mu génn ko ci doonga daara xanaa foofa dafa naan def lu waaw foofa itam maanaam ñàkk jàng gi rek ñàkk jàng gi rek ndax su soo ko yóbboo ah jàngul daw ñibbisiwaat luy mujj da nga koy génne rek dugal ko. dem dugal ko ci métier. waaw ba dugal ko ci métier mais mën naa ñaw waaw. Mm. léegi lan moo lan moo ko naqari ba tax mu du ko def. bu jógee ci kër koy touché. ah mais xam nga xelam gone moom itam loo mën a xam la nekkee moom. Mm. la du ni da koy toppatoo rek ne ko demal liggéeyi soo ñëwee fekkoo mu liggéeyi nga laaj bu ñëwut. après nga nga nga xool saa bu ñëwee nga ne ko demal liggéey soo demul bu fekkente ne kii dama lay duma. su loolu loolu itam alaakulli aar yi da koy soo ko xupput mu toog. kon da ngeen a mas a tongoo ci kër gi am na. ah to tongoo sax xanaa soo xëyee liggéey rek soo ñëwee fekkoo ko fi su ñëwee il faut nga ne ko demal liggéey. Mm. wedd ko xupp ko xamal ko ne ko demal nga liggéey. loolu xam nga yaay mu ngi ci kër gi àngoon. léegi waaw ah, yaay mi comme noonu rek léeg-léeg su fekkente ne meer na bu ñëwee toog mbaa nga ñëw fanaan mu. ko tax a mer il faut ko affaire nu demee. non mais comme itam. Mm-hmm. ñëw na liggéey si wut su liggéey wut bu ma ñëwee. su ma ko laajee su fekkee fekkuma ko fii dem su ma laajee yaayam yaayam danaa ma man gisuma ko. yaayam du la nëbbu. ah non léeg mu mu nëbbu mu feeñ waaye itam xam nga borom kër ji këram su la nëbboo itam soo amee ñaari fan ba ñett soo ko gisul il faut nga ne ko ana diw. Mm-hmm. ah bu waaw ah, ah, bu nee nag nekku fi ci loolu moo waral ma di ko laaj nii rek. yaay mu ngi ci biir kër gi. yaay mu ngi ci biir kër gi tout le temps. sa soxna waaw ah, mooy sama soxna. xale bi góor la wala góor la. ñaata at la war waaw war naa am 2008 daal la judd. waaw mhm. boobaak léegi nag xam naa ne moom ay at yi. Mhm. fukki at yi war naa. teel moom muy def yàgg moom mais day jéggi rek muy def demee dafay yàgg. non daana dem xaw a yàgg. Mhm. bi muy nekk ndongo daara. mais bi mu demee ba arrêté ndongo daara gi nag ba ñëw ci kër gi su demee ay ñaari fan ñett ñeenteel ba mu ñëw. waaw mais loolu itam man doyuma daal. ndax jamono bii ñu toll nii ku foo fu nit fanaan war nañoo xam fan la. waaw ndax wóoru ndax ak fi jamono toll. Mm-hmm. looloo waaw waaw waaw fii mu looloo tax ma ma di ko laaj. sa xel fan la toll xalaat. ah non xalaat bi mooy maanaam ni jamono demee rek xam nga jamono fi mu nekk nii moom ah, nit ñi fanaan ci mbedd yi nit ñi dox di dox loo xamante ni jubut nit ñi nga xamante ne itam daanaka agresseurs yi ak leneen nit mën naa fanaan foo xamante ne nii problème am fa ñu boole ko ca te fekk benn bu ca bokkee bu ca bokkul mënoo xam looloo tax it il faut maanaam ngay ngay ngay toppatoo waaw waaw lu bokk waaw waaw dugal ko ca waaw parce que loolu mën na cee ne waaw itam dafa daf di yoon sax ndoom ndax doom itam boo ko gisul tey dagan nga dem fa nga xamante ne war naa mën a nekk nga xoolloo ko fa nga xooloo ko fa te ñun xam nga mënuñoo jóg di dem fen mais rajo moom comme que jotal na maanaam sa doom tey bu nekkee ci équipe boo xam ne benn bàyyiwu ca boppam wala dañ ko ca téye wala moo daw dugg ca itam lu mën di xew soo waxee lii suñ ko déggee moom bu fekkee nekk na ci loxo yoo xam ne mën nañ ma koo wax ma jëli ko. waaw mm. ah, loolu daal laa ciy dem rek waaye du leneen nag. Mm. moom nan lay solo. waaw ah, moom daal. waaw xam naa jotuma xool nag li mu sol nii waaye. ab jiin daal la fi la fi la fi bàyyeewoo koo ak benn tiset. Mm. waaw jiin bu xaw a gàtt peewu nii rek. ak ab tiset boo nataal ni nu nu war a toll ak nu ah. mel. waaw ah. dafa ñuul wala dafa xees. non dafa xees nag. Mm. dafa xees dafa xees. Mm. dafa xees ndax dafa gàtt wala dafa njool. xaw naa njool nag. waaw xaw naa njool. waaw ah. xanaa pour mu ñëw rek maanaam kay su ku ko gis rek mbaa nga fexe ba ba noo ko am foo ko dégg rek maanaam numéro yi lay jox moom bu mm. fekkee léegi moom Mohamed Ndiaye la tudd ñu koy wooyee Seydina Ndiaye turu Seydina Ndiaye yu nag mm. moo jàll mm. ne Seydina Mohamed lañ ko tudde waaw waaye turu Seydina Ndiaye moom moo jàll ndax ay rakkam dañoo tudd Seydina Mohamed ay magam tudd Mohamed waaye moom ci jëmmam moom turu Seydina Ndiaye bi moo jàll. yow boo boo tey noo ko dundee. saa yu génnee nii rek. ah saa bu génnee comme nii rek. en tant que waajur ak ak doom. waaw xalaat di ko xalaat rek. ndax ala al itam liggéey. dafa nekk loo xam ne warugar la ci diggante doom ak waajur saa bu génnee itam man li may bëgg mooy mu ñëw liggéey si ndax waaw ndax bu fekkonte ne ay moromam tey ay rakkam yi nga xam ne ñoo décoré jël naa li yóbbu ca daara ja ca daara ja fi mu ne cay jàng mais moom itam comme nanguwul a jàng ah mooy seen mag ñu indi ko daa war a liggéey noonu rek la liggéey boobu loolu rek laa ciy xalaat li ma bëgg a laaj ah. dafa bañ liggéey wala dafa ah. bëgg dugg ci ay fàq xam ne waaw xam nga itam xam nga fi mu xam nga jamono dafa toll foo xam ne bu fekkee jàngiwoo mbaa boo jàngee ba ñëw sax te nanguwoo liggéey fa ngay mujj mooy fàq rek. Mhm. te loolu nag itam bëggaluñ ko ndax tolloogut ci jamono jooju. Mhm. waaw ndax fi mu ne toll na ci comme moom mën na ñaw. Mhm. mën na dagg toll na ci fi ne nii war a mën a liggéey itam suñ sañan day toog ànd ak dal. nangoo toog liggéey. sinon bu fekkee deful loolu itam dañuy dem dem ba su ah fax ciy bëgg mujj. te loolu gënut. ndax fi mu ne ku nanguwul la liggéey kan moo lay yor. waroo mën a am lu la mm-hmm. léegi fooy mujj mm-hmm. dugg ci foo xamante ne nii di jëlee fi jàmbur mm-hmm. ak di agressé te loolu itam gënul te ñun itam bàyyi la ñu lii moo ñu ci war nde amuñu sañ-sañ di ku dóor wala ñu koy defee noo xamante ne nii waru loolu rek la de léegi kan moo koy war bàyyam ah, du koy war nii pour ku ko dégg rek mën ma cee jàppale waaw wala moom bu ko déggee te mën a ñibbisi mu ñibbisi waaw ah, ndax kenn defu ko dara kenn wu ko dara waaw looloo tax mu bëgg ma bëgg su ko déggee ñibbisi wala ku ko te xam ko boo ko foo ko fekk mën ma koo indil wala nga wooma ci numéro yi boo ma la ko wooyee waaw boo ma ci wooyee itam ma mën la ko ba mën koo jël si mm-hmm. waaw jërëjëf sant di gërëm rek ah man mi nga xamante ne man maay wërlu mm-hmm. tey ñaan daal itam yàlla feeñal ko ah yàlla na ko yàlla feeñal daraja yonent bi alayhi salaatu wa salaam ah yaayam itam di xalaat rek ndax fi mu ne nii nelawul moom mu nga tëdd rek di xalaat waaw ndax itam doom fi mu ne nii moom foo ko mën a teg ngir mu liggéey ah su fekkente ne deelee day génn dem liggéeyut après jëm jamono fi mu toll nii itam toujours yaa ngi dégg ay jafe-jafe yoo xamante ne nii. nit ki ñuy fekk ci sa biir kër. indil mhm. la problème mbaa nga génn ci mbedd mi ñu indil la problème ah, léegi soo toogee. dama yaa ngi dégg léegi réew mi foo gis gone génn nii ci mbedd mi ñu indil ko problème mbaa ñu fekk ko ci biir kër gi indil ko problème mbaa ñu dab ko indil ko problème mhm. kooku kay soo ko gisee gis sa doom. a ah, léegi mu waaw mu nekku fa da ngay xalaat loolu ci loolu rek la ko yaayam di dunde te man itam foofu mu ne foofu rek laa koy mën a xalaate ndax ko amul la la gën itam ah, li nga bëgg moom soo ko amee moom damay ñaan yàlla mu ñëw ak jàmm toog liggéey waaw maa ngi leen di sant di leen gërëm alors ah, rek la de xale bi da jaaxal na ay waajuram fi mu nekk nii. mbay yaa foofu na xam nga lu ma bëgg. Mhm. ngeen waxal maag xale yi nga xam ne dañuy fàq. laataa may ñëw par ci raison yi nga xam ne des fois tax na xale yi di dem. Mhm. Euh, waaw foofu tax na doomam bu am mukk. Euh, gis nga. mantu man moom fàq bu amee quel que soit ki may blâmer mooy waajur yi mhm. quel que soit alpha mhm. lu mu mënti demee mhm. su may blâmer rek surtout xale bu ndaw bu faaxee waajur yi laa njëkk a blâmer parce que dañ ne waajur sàmm la te ëllëg yamal xiyaam dinañ la laaje noo sàmmee sa njaboot te lan moo war sàmm même ki nga xam ne ay jur la di ko sàmm sax mooy fexe ba bu jur gi même àll bi lu mu yaatu yaatu yaatu yaatu. Mhm. jur gi na leen génnee yóbbu leen noonu ngay fexe ba ñu ànd yaatu leen. Mhm. ñu ne ñu toll si jamono joo nga xam ne nii waajur si bari njabootu kanaara lañ ko def maanaam dañuy jiital seeni doom ñoom ñu nekk ci ginnaaw. Mhm. gis nga xale. xale bu ñu waxee xale rek ça veut dire que moom mënalul boppam dara léppam yow la yow waajur yi bu dëngee yow la bu jubee yow la. bu wéyee si ay ndigal yow la leneen bu amee it yow la loolu ngir mu mën a nekk waajur quel que soit dafa war a mën di waxtaan ak njabootam. Mhm. ku góor ki na ay na papam di wax moom bu mu ko xeeb lu mu ndaw ndaw ndaw ndaw nay waxtaan ak moom. Mhm. ku jigéen ki na yaayam di waxtaan ak moom. Mhm. gis nga xale. fu mu amee jàmm rek. dinaa bakkee jàmm la bëgg mais xale fu mu amee jàmm fa lay toog du fa jóge fu mu amee jàmm du fa jóge parfois nag waajur yi waxtaan woowu nga xam ne moo mën a dox seen diggante seen i doom rupture de communication mooy am te rupture de communication bu amee xale bi fa mu amee fa muy toog di waxtaan fa jàmmam nekk fa lay dem mm-hmm. xale juddowul rek dëng de déedéet fii kenn juddowul dëng mm-hmm. booy baaxoo di waxtaan ak sa doom di nga xam kii lan moo koy nekk di nga xam kii lan mooy ay jafe-jafe jigéen ki tamit maanaam yaay ji na baaxoo di xool doom ji jigéen bi parce que yaay sa moo ëpp lu muy seetlu. parce que mm-hmm. góor moom day dem rek mm-hmm. uti andi ci kër gi. Mm-hmm. dëgg la donc il faut yaay ji di seetlu. yaay ci kër nay seetlu. wala man sax dama naan waajur. papa yaay nañuy seetlu seen i doom. koo ci gis ne mi ngi commencé jàddu si yoon xëcc ko toog wax ak moom. doom góor moroom nga koy def. di waxtaan ak moom. xamal que ne lii dang war nga ko jomm mhm. fii mu nga war a teg sa tànk nii nga war a doxale parce que du rek sama doom mi ngi mi ngi lekk mi ngi naan yóbbu fayal naa ko mi ngi jàngi sama wàccew naax moom mhm. déedéet mhm. loolu wareef la boo war a def rek waaye li li nga xam ne moo mooy sas wi dëgg dëgg dëgg dëgg mooy yar wa yar wi dëgg dëgg dëgg mooy di wax ak moom du gàddu yar rek di doo de déedéet mais dellu wax ak say doom tout le temps loolu bu amee yaakaar naa ne du ma ne fàq du am waaye bu fàqee di nga xam ne kon lii moo ko tax a fàq waaye xam nga ne waajur bi xamul lan moo tax doom ji dem ba léegi mm-hmm. sa doom bu fàqee mm-hmm. di nga xam ne ah lii moo tax mu fàq parce que doon na jàmbat lii mm-hmm. bu dee ko jigéen kat doon na doon na am na lu ma seetlu ci moom lii ah. jot nañ ci toog waxtaan xëj na foog na ni ah. dina ma metti moo ko tax a daw mais tant que sa doom mi ngi faax xamoo lu ko tax a faax c'est parce que rupture de communication. communication amoo raison bi rek. et puis et puis man am na ci loo xam ne am na ci kër yi. Mm-hmm. faaw ñu bàyyi ko xel. Mm-hmm. sa doom bu góor wala bu jigéen nga di ko tëkku. Mm-hmm. yow yaay ji naan ko dinaa la rendi xattit. am na terme yoo xam ni boo ko génnee xale xamul dara. dama lay rey dama lay rey ba nga dee bu doon eh, yow yow sa bokkul ma la di ko di ko muulu di muulu sa doom. am na xale yu bari yu fàq yoo xam ni da leen a tëkku moo tax ñu daw. waaw Euh, dañ leen tëkku ak traitement bu bon ci kër yi nga dem ci bitti uh-huh. gis benn Fofana boo xam ne dafa baax uh-huh. wan la mbaax parce que bëggoon na la iri ci moom uh-huh. boo demaatee seen kër mu metti dangay demaat ci Fofana moom nga jëm bakkan jàmm la bëgg boo demee stress su kër ga ak bañ a nekk nekk ci mbedd mi tiital la ñu jox la xeetu Sénébar ngay utiliser bu ne attention ginnaaw raay am na benn euh, xale boo xam dafa réer une semaine ñu wax ma ko fan yee passé pour ma jàllee ko tes xale ba mu na feeñ mais bi mu feeñee dañuy sama papa moo ma tëkku ma hmm? def la moo tax ma daw. dafa daw te buñ dawee duñu wax seen tur yi de. beneen tur la ñuy wax. kon nanu bàyyi xale yi ñuy tëkku. lillahi wa rasuli gis nga mbay li nga doon wax léegi te mu nekk ci kër yi te duñ ci wax. kii nee na moom 53 ans la am nee na moom magam am na 56 ans. nee na seen jëkkëru mag ci boppam seen taawu seen taawu yaay. jëkkëram nee na moo leen yar mais jëkkëram def na def na leen ko ñoom ñëpp. maanaam sàkku na leen. Hmm. moom nee na il a 53 nee na fi mu toll nii il presque presque 80. Hmm. daka doon def sax propre sœuram bu mbokkal benn pap hmm, nee na propre sœuram bu mbokkal benn papa. da ko doon def mbirum yëkkataan gi waaw. bu fekkoon ne dañ doon monter ay caméra wala ñu ne képp koo xam te ne bu fekkee rek wàllum sutura ak wàllum nëpp nëppal dindi nañ ko rek. Mm-hmm. sawaay loxo dina dar gémmiñ. Mm-hmm. Mm-hmm. kër yi la cay xew ci yu mel nii. bari ci wàllum yàqataan. kenn xamul nu mu toll. mooy ñu ñuy tuddee tonton saay saay. da nga koy gis ci campagne de sensibilisation mooy lu ñu tuddee wàllum inceste jur sa doom ba pare te def ak moom naka sudul noonu ba pare ak ñeneen ñoo xam ne dañ daan ñëw ca kër ga nekk fa ñii vacances nañ fay ñëw ñii leneen indi leen ca kër ga dégg nga pour wan la rek ne lii tey nu mu jéggee dayoo ak nu mu nu mu nu mu doyewaar ci suñ société te lépp nag lépp lu ko waral mooy nëpp nëppal gi nëpp nëppal rek moo ko waral de nëpp nëppal parce que mm-hmm. gis nga lu bon mm-hmm. da nga koy teel dindi mm-hmm. bant doo xaar ba mu wow nga koy doogu bëgg a jubbanti dëgg

mu ñëw fekk ma si nekk te mi ngi tëdd ak sa sa sa sa jur bu jigéen bu la jur. ci beneen nii mu bako fa ñëw fekk si la foofu. feebar la ñii ne la waaw. Mhm. sama yaay ak sama papa dañoo amoon problème. ñi nekk sama papa sama papa dëkkoo ma def ma soxnam. Mhm. parce que yéenay bokk fanaan. yaa ak say rakk mhm. mais bu gone yi nelawee ay ca ma nga sa kaw. loolu bi. dëkkin bi waaw dëkkin bi moo koy favoriser loolu laa lay wax ni benn néeg benn néeg nga am ca doomu jànk buy solu ngay gis ay cëram cëram ñu ne deet na waaye dëgg la sax ak sa doom lu ci mënti mel waroo ko xool waaye seytaane nag nga tëdd sàgganu bay hmm. bay booy romb la da nga fàtte ki ñu feen di woon tasew boobu jamono boobu yàgg na moom doom ji suuf lay tëgg hmm. papa ji tëdd ci kaw lal bi yaay ji su guddee papa ji jóge ci lal bi fekk ko ci suuf ba ba ba ëmbal ko oh, ay waay waay xew na fii tas o oh. ñëw na fii tës ba yaay ba mu ko laajee nu mu naan def ba nekk ak yow mu ne ko guddi gi man ne ko yow it nga nelaw soxna si. sa ganu. bay nelaw nag. nelaw boo ko defee daanaka dee bu ndaw la dee bu ndaw la de waaye nag. mais sa doom moom a xew. trois heures du matin. Mhm. na ci ak nu mu mënti mel sa doom moom. xel ma tàmbale cee nekk. waroo ko xool benn bët. muy commencé lal palang. Mhm. Euh, naan sama doom ji bay. boobu gisatoo doom de. déedéet. jànq nga gis. ci yàlla yàlla musul seytaane beneen partie doomu aadama bi doog muy mhm. hmm? mala gi mala waaw parce que hmm? yow nit dafa am partie ci moom boo xam ni mala la mala waaw hmm. boo xam ne yow boobu moom du gis lu dul satisfaire loolu moom moo tax yan nii ñuy ñaan ñu war di ñaan suñu borom di ñu ci musal lay dëgg la. parce que am na ci yoo xam ne moom nattu la moom. Mhm. feebar la. Mhm. mais nattu la. Mhm. xam nga bàyyi bu dem jur doom. ngénte ko daj lu ne mu leer ne kii. sa dara la. nga yar ko ba mu màgg. mu leer ne la yàgg wooy juróom bu jigéen la woon. ba moom mu sosoo ci. nga bëgg ko séq ak moom it. nga bëgg ko séq ak moom. am <laughs> kii chauffeur kooku ku fi ne ku fi ne. naam ku ñëw Abba. oui Abba. Abba noo waa jàmm gën. waa jàmm gën ñu foofu ñëpp lu commandant bi commandant Diallo bu police centrale euh, commissariat central bi ak commandant Faye bu poste bu jàmm gën ci Kambaaw. commandant yi maa ngi leen nuyu Sall ak Faye ah. ak jàllo Faye ak Diallo. ak commissaire xam ñaari kii lañ am dañoo am commissariat central am poste bu poste police. Hmm. ah maa ngi leen di nuyu du nuyu commissaire Adrame Sarr di nuyu commissaire Khadjata Sall mu rëbës mii moom tamit commissaire lay bu Géejawaay aussi hmm. macha allah commissaire ginnaaw raay bi ñu ngi koy nuyu ginnaaw waaw ginnaaw raay suñu waay la quoi hmm. Isidore Birame Faye amaa nag moo xam commissaire yëpp de Eh, kii ana seen si abaa ñu leen di nuyu di leen di leen di leen sargal abaa waaye chimère di suñu waaye chimère daggal na ma ci tuuti yaa ngi xooba topp police centrale maa ngi koy nuyu yaa ngi xooba chimère nag léegi dafa mel ni dama la commencé ëppale ci yaa ngi xooba ndax yaa ngi xooba léegi damay jég damay damay jég ba saa di ko woo waxtaan ak moom nii rek parce que daf ma neex daal may wax ak moom nii rek cim nag eh, eh. te yaa ngi xooba suñu xaritoo mi ngi gën di dëgër ah, baax ah sim ah. moo baax sim xaritam la de ah. Chimère foo ko fekk taal na otoom dem toog ci yànq ba ñuy waxtaan léegi man nag comme ma dem sama téléphone laa yor fu ma nee ah. nii rek ne allo top def récupération nam naa la ñu waxtaan man commissaire Bara Sankaré laa bëgg a borom bi Bara Sankaré <laughs> mu ngi lay dégg moo gën a wóor de abaa man waa gendarmerie Mbagnick Sène moo yor euh, brigade travatal bu gendarmerie ak commande ak adjoint euh, Jiba takk der daal yow ngay wër. ñu ngi leen di nuyu waa LG ñu ngi leen di nuyu mbaaw maa ngi leen di nuyu. yéen rek chauffeur bii nii. waaw chauffeur Descos la ah. Ah, dafa for ci route national numéro un bi benn colis. Uh-huh. colis bi nag ay balu tissu la def. Ah. képp koo xam ne say balu tissu daf la réer. xam naa peut-être dafa wadde ci oto wala. Ah, nga ñëw fii ci descos bi mu ngi fii rek. mu ngi fii avant supermarché bi fii nii ci VDN bi. boo ñëwee ba ci ba ci foire bi passé ko tuuti. Ah. da ngay laajte supermarché bi fu mu nekk boo ñëwee ba supermarché bi nga laajte fu descos nekk. Hmm. boo ñëwee ba ci descos bi ci kàttanu borom bi. nga ah. joxe ay garanti yu ay gendarme lan nag. ku moomul bul ñëw si noonu bu siin nga jëm nga laajte nag euh, colis bi da bi nga wax nu mu mel ak tissu yee ca nekk nu mu mel ñoom seen bu ko defee ñu mën na ko jébbal waaw colonel Sabouri Ndiaye bu Descos ñu ngi koy nuyu bu baax colonel Sabouri DG Descos waaw ah, ah, moom sunu waay la waayu kër gi la Omar du yow de hmm. léegi sax ma yor a kulla. ah fi mu ne de abaa. Ah, yow de ñun moom ah. lijjanti nañ suñ bopp ba pare. <laughs> waaw ñun moom bugaan ngay dani waaw wala dootuñu ko fi tuddee. sax ma yor a kulla mooy jaay xaar yi fële. ak kii jaay fële soble ñun ñun ñun waruñu jaaykatu xar de. kuru jëndal. Guèye on a des xóobale ba pare. <laughs> ñun wékk nañ ko ñun suñ fi mu toll nii dañoo wéeru ci Guèye. suñu carton xoo la ñuy wax. ñu dëggee ko jàppal dina réer génn Sénégal parce que dëkk yooyu muy dem noonu dina mës euh, ba génn frontière de. <laughs> wër rek dem yor ay carton rouge dem sa Mali. wër rek. le <laughs> drapeau Sénégal ñu ne ko déet da nga juum. réew jàmbur nga ne dellul dellul dellul sa réew Sénégal dellul. xanaa foo ne. <laughs> dëkk yu muy wax kenn xamu ko foofu rek ko xam Sénégal. waaw dama def. ayca doxalaal. waaw kon ma nuyu mère Maguette rek fa laa jëm léegi xam naa ndekkee ji foofu. Eh, voilà xibaar dëmbeeg dëkk bi di wéy di si Zik FM 89.7 yéen ñi choisir jaare ko sur les allées centenaires sans que je vous le dise de soucis seulement am na quelques défis de travaux yi bu bàyyi ko foofu la laata ngay jot RTS su ko defee échangeur Malick sa patienter à ce niveau su ko defee aussi mën nga progressé utali poste nu Médina là-bas aussi may accès nga progressé jaayee ko daaf yéen a ngi jëm poste bu nekk la corniche est su ko defee aussi yéen ñu bàyyi ko du côté du marché ci leen sooy progressé vers ce point bu ngeen ko dépassé aussi vers fi nga xam moom mooy mooy kër la tracé di rappelé aussi sànq rek jaar nañ ci accès bind maanaam boulangerie point Escale di rappelé quelques travaux am ci yoon bi da ngay

Gros bonus, grosse cote, gros gars. Téléchargez l'application OneXBet, faites un dépôt et recevez un bonus de jusqu'à francs. le plus gros bonus jamais obtenu. OneXBet est un bookmaker fiable. Rendez-vous sur onexbet.sn. Inscrivez-vous avec le code promo rs et recevez un énorme bonus de bienvenue sur votre premier dépôt dès maintenant et une chance de gagner. OneXBet vous offre plus. Jeu autorisé par la LONAS. Jeu interdit au moins de 18 ans. yow kay jox ma foofu benn tampiko tampiko mooy sama jus préféré amul lu gën a neex tampiko ay fruits naturels lañ ko parfum citrus wala mangue yëpp a neex ma bébi tampiko bu la neexee laal sa benn sachet mais am na bouteille bu ndaw ki kooku pare parce que wàññi bi nga demee. yow vrai défaillant la. je programme automatiquement mes transferts les plus fréquents à partir de mon appli Orange Monnaie en toute simplicité. Si, si, je décide du montant. Je choisis le destinataire, la fréquence d'envoi en jour, semaine ou mois. Une fois que mon transfert automatique est activé, Orange Monnaie le fait pour moi en toute tranquillité et à chaque échéance. Orange Monnaie gën a gën a wóor sama appli Orange Monnaie premier sur le transfert automatique Orange Money est un service de Orange Finance Mobile Sénégal. Orange Money. lii ab société le di yëngatu ci wàllu alucobon ñoom nag ñooy wër ay techniciens spécialisés jëm ci tegum alucobon ak expérience su ñetti at lu mu tuuti tuuti seeni CV mën ngeen ko envoyé ci whatsapp numéro yi ma leen di jox 76 529 75 45 wala 76 645 89 77. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour faire bouger les choses. Alors, commencez chaque journée avec le goût d'une bonne tasse de Nescafé classique, fait à partir des meilleurs grains de café et torréfié à la perfection pour vous offrir cet arôme et ce goût unique que vous adorez, pour vous aider à commencer en force et tirer le meilleur de chaque journée. Commencez en force, finissez en force. Nescafé. taxaw si li leen soxal ñaar fukki at a ngi nii ñuy warloo di leen gën a jege saa ne rawatina ci wàllum jàng ak wér yaram fondation Sonatel jóg di ko jaayante ngir yombal dundub askan wi fépp ci Sénégal si tabax ay kër docteur ngir faju yomb si ñëpp yeesalaat l'école yi ak di baaxee ay bourse ngir suñu docteur yi mën spécialisé wu Sonatel ak yéen ngir yéen nekk EDK bële bu géejawaay bi mhm. mais Mantoulaye mhm. Pa Pa balaa may fàtte doom ji day anniversaire suba Pa Moussa Traoré ah Pa menn journaliste bu mag Pa Moussa bu tribune sa jàmm yàgg bu ah, baax min ku ku am yar Pa Moussa c'est jàmm xam nga sànq ñu ngi wax euh, ci xale yu rëcc yi yéen a ngi wax lu bëri lu koy jur mhm. responsabilité parentale bi wax nañ ko mm-hmm. Mm-hmm. wax nañ environnement bi mm-hmm. wax nañ cadre bi duut nañ baaraam ci waay waajur xale yi mais dafa am benn aspect boo xam te ni tamit dañ ko war a jël en muy à la décharge des parents. nit di nga jur bëgg mu baax. Mhm. mais bul fàtte ne xale bi day génn. Mhm. di fowi. day génn di jàngi. fréquentation. très bien fa parce que tamit xale bu amee fréquentation bu bon mooy indi lu ne. Mhm. xam nga papa ak yaay dinañ góorgóorlu def lu ne. parce que fii ku fi ñu dama ne la ñun fi tudd naan dañoo bon pourtant ay way jur yu baax nañu am. ñu jur leen fañ leen war a juree. Mm-hmm. jox leen tur yu baax. jox leen tur yu baax sonn ci ñoom. yar leen yar bu baax leen dawal guddeeg bëccëg suba ngoon. Mm-hmm. dara manqué wu leen. Mm-hmm. dañu doom ci te ñoo ñoo gën a doy waar sax. <laughs> dama ne la. mel nu la neex. bàyyi boo yóbbu police jubanti. nga ne dee deg yow mukk doo changé. du yaay booy woo mbokk nijaay am di jàmm taaj la ku nekk sumb ci dugal ci loxoom. yow nga ne xolal mhm. yoon bu bon bi rek. bëri na ci xale tey yoo xam ne ñi ngi nekk ca la leen neex di dund la leen neex. seeni woy wayjur yi pourtant buñ la nettali woon lañ ca daj ak ñoo si sonn ñu olof njaay di wax doom da ngay jur rek may xamoo loo jur kii du tëb doom jëbët waaye mhm. kii du ne tëb doom jëbët de ah, kay moo tax booy xool yu mel nii li ci ëpp laa la wax li ci ëpp gone gi mooy am mel melinu boppam melokaanu boppam parce que nag ku sañoon boo juree doom mu gën la wala mu gën mhm. bàyyi booy dina dem ñu ngi naan njaboot gi amuñu euh, euh, jur yi amuñu temps yar seen doom ndax jamono ju met yaa ngi dem tëltëne yaay booy dem na yeewu quatre heures du matin dem marché au poison dikk mais beneen affaire bu gën a doy waar xam nga lan la mhm. suñu téléphone yii xale bu ndaw am fukki at nga jox ko téléphone. mukk ci at nee ma beneen ba na gën a garaaw. beneen bi télé bi. si man dama ñu si kër yëpp am connexion. Mhm. connecté ko ak tele bi YouTube. gone mhm. gi yow lan muy maîtriser ci tele bi yow way juróom mënoo ko maîtriser woo ba seen biir néeg day am tele Mm-hmm. dégg nga bu ko defee gone gi nag di jànge foofu mm-hmm. seetaan yoo xam ne ne xale bi day def yëfu guerrier xale ku muy seetaan ki day rëcc ku muy seetaan ki day am ay ay ay ay ay cuks mm-hmm. ay gel di gérer ba léegi gis na ne lii moom lu baax la il faut ma répété ko mu def kay sociaux yi beneen problème bu ko defee yal nañu suñu boroom aar. amiin yal nañu yàlla suturaal. amiin te def ci gone yi lu ñu bëgg ci ñoom. ndaxte waajur gu ne boo sañoon nag wax dëgg yàlla. sa doom la nga def ca xale ba rek. moo lay gën sax moo lay gën. ñi nga xam ne ñoo ñu jiitu yal na leen yàlla yërëm te yeesal yërmande seen kaw. ñu xel day dem nag ci Omar Sow mii nga xam ne dem si yàlla sa léegi laay gis ne ne mooy quarantième jour am yal na ko yàlla yërëm yal na ko yàlla xare ci aljana yi gën a kawe nga xam ne dañoo wopp nekk ca l'hôpital yi wala ca kër ya yal na yàlla fëgg seen bopp ñi nga xam ne am nañu soxla te yaakaar ne lu dul suñu borom mu wallu leen ci yal suñu boroom dikk yàlla mi nga xam ne yow mii yaay boroom bët bu rëy bi yaa sañ yaa mën te yaa xam yàlla suñu boroom ñu ngi lay ñaan yow mii nga xam ne koo jàmmal ku ne mu am jàmm nga wasaare ko ci askanu suñu gaal ñu ngi naanal ñëpp jàmm di ko sàkku ci yéen di leen wax à lundi incha allah wóolu